Lil Durk dañ ko arrêté moom ak cinq personnes yu bokk ci labelam bii di OTF Only the Family lan lañ leen di toppee rapport bii di Kande Rando cousin la ñu faat depuis deux mille vingt deux ndax ñoom seen problème du tey bu ngeen fàttalikoo rapport bii di King Von mi bokkoon ci label OTF bu Lil Durk tañu faatoon ko moom Kande Rando mi gangam kenn ci ñoom moo faatoon King Von ginnaaw bi King Von doon tëgg benn soirée jour boobu Kandarandoo dem na moo ki nga xamante ni moo faat King Von moom Kandarandoo jour boobu expliqué na bi mu ñëwee ki mu àndal mu ne dafa bëgg dugg ci soirée bi dem bëggee ko de ko ne génnaat mais Kandarandoo moom mu duggul mu ni ko demal quinze minutes nga dugg soo lijjantee soxna maanaam gel après nga génnaat dans quinze minutes moment bi nga xamante ki faat King Von dugg na ci soirée bi Kandarandoo nee na mi ngi toog kuul ci otoom après bi soirée bi tasee groupe King Von ñu génn bi ñu génnee moom Kandarandoo nee na am ku ñëw dóor ko bi ko dóoree ku automatiquement moom sa nee xamul fu mu nekk quoi pour moom sax dafa am lu ñu def si yaram bi nee nag si la affaire bi déclenché ñoom it riposté ba ñu rey King Von ba ki nga xam ne sax moom moo rey King Von bi mu tëddee kaso après dafa fay caution génnaat ñoom nag seen problème comme ni mu leen ko waxee si début bi du tey ndax Kandarandoo moomu seen benn membre bi faat King Von ginnaaw bi nga xam ni faat nañ ko ba pare moom Kandarandoo da def ay live di manqué respect King Von mi nga xamante ni dafa décédé moom King Von moom ñu faat moom tamit dafa nekkoon defkat parce que bëri na ñoo xamante ni rey nañ leen moom loxoom seetu ci woon bu bëri woon problème jour bi ñu koy faat bi problème bi amee moom moo ko déclenché ci li ñu wax moo jour boobu lañ ko wàccee mu nar a métti loolu nag si lil dëkk ndax nee nañ bu fekkee ni lii ñu koy toppee dëgg la même su fay caution sax duñ ko bàyyi dafay tëdd prison à vie en tout cas man dama koy wax firi moom lil dëkk ku ma neex la ak lu mu mën di def ku fonku waxtu juróom la ndax jullit la day pratiquer aussi tamit ku fonku alxuraan la topp leen ma si deuxième partie bi bu ngeen bëggee xam kan moo Blanche Lille 2 abonné leen aimé